Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf Karim Wade waaru na ba far jàpp gémmiñ gi photo ci xët mu njëkk observateur ubbi leen journal bi mandat d'arrêt international la ñu ko fëgg procureur spécial yu ndaw moo ko ko fëgg cour répression enrichissement illicite di kuréel gi ñu samp ci réew mi ngir muy saytu am am bu lewul moo ko santaane yéen kay bi nañu Karim Wade ak la ñu ne denc na ko moo tax ñu topp ko ndax nee na ñu am na juróom-ñetti milliards yoo xam ne ma nga mu làq ci am na appartement ci 16e na jet privé lakk benn ca Touba benn ca Kébémer ak juróom-ñaari wata yu bakkane lool journal bi nañu lii tax ñu jël mandat d'arrêt fëgg ko Karim Wade fa Karim Wade toll ak yoon moo di fu ngeen ko fekk jàppaleen ko andi andil leen ma xët mu njëkkool fajri grand place premier ministre bu Sénégal di Abdoul Mbaye ndekete ab tëx la journal bi nañu soriwu ko Abdoul Mbaye ak dégg-déggam leerul ngir mu mën a dégg bu baax dafa am lu muy jël roof ko ci nopp yi la muy roof ca nopp baak fa mu koy roof journal bi di wal fajri grand place xëy ko photo tegal ñu tëx bi di Abdoul Mbaye ak gouvernement bu yees xamal la ci askanu Sénégal di xaar ñenn ñi ñoo a def ci bopp ay miracle dóor nga sa loxo ci ëkk ndax du ca am li am ci xët mu njëkk Le Quotidien moo di mer mi nga xamante ne ji ñi doon jàppal tànk Macky Sall doon ko jàppale ba mu falu te gisuñu seen bopp ci gouvernement bi ñu toj bërki démb tabaxaat ko mer moomee gaa mer la journal bi xëy dikk ak ñun ke ca njëkk ama kàddu ga moo di Mously Diakhaté Mously di fa xamle ne Macky Sall ni mu doxalee ak ñoom manque de respect la maanaam wegu leen benn yoon ka ñu dàq ci gouvernement ba di Ibrahima Sall ne jamono ji ak dàqam mënugu cee wax agum yan Iyane am ne ñoom daanañu amal ab réunion boo xam ne lañ cay waxtaane moo di xool ana Macky Sall mi ñu lëngoo ànd ak moom fan la jëm ak ñoom moom mi moom groupe Walfadjri di Sidi Lamine ay kàddoom mi ngi ci xët mu njëkk Walfadjri nee na Macky Sall amul couleur observateur ne ko neexut a weddi ndax Macky Sall ni muy ngerañee aw ñoñom ñoo bon ne fi mu jaar tey ak maître Aline Badara Cissé jaar na fa ak Moustapha Lo jaar na ak ki nga xam ne moo di Mbaye Ndiaye direct info moom xëy di laaj ndax musiba mi du doon numéro 2 ci parti ndax li am ci diggante Macky Sall ak Alioune Badara Cissé amoon na fi ci diggante Abdoulaye Wade ak Idrissa Seck amoon na fit ci diggante Abdoulaye Wade ak Macky Sall Macky Sall gouvernement bu yees bi ñu muulaat bërki démb wal fajri moom xëy ca gis leneen moo di am na ci doublon yoo xam ne moo nar a yàq yëf yi am na ci ñetti ministre yooyu ñoom ñett ñëpp wàllu éducation di njàngame la ñuy toppatoo wàllu mbënd mi di inondation it dénk nañu ko ñetti ministère ministre Alaaji Mansour Sy mi amee fonction publique moo xëy amee xët mu njëkk Sud Quotidien la mu njëkke moo di gerew yi nga xamante ji ñi ci fonction publique dañu koy def te fu weer dee ñu dem dëngalu ju jëli seen salaire ku fi gerewati dootuñu la ko fay dañu la koy dagg nee na seen mooy xool ba xam fonctionnaire yi ci fonction publique bi ñaata la ministre Youssou Ndour mi ñu donkoon culture ak tourisme te far nangoo ci moom culture jox ko wàllu loisir Oussa Diallo ne ñu ci yéen kay bi di wàl fajër grand place mbégte jafe-jafe dong la ciy am beneenab waykat gannaaw Ousa Diallo ci beneenab yéenekaay mu di Cheikh Ndigal Lo ci enquête yéenekaay nee na Youssou Ndour lu ko dal gàtt xelam moo ko ko yóbbee naïf dëgg la def Youssou Ndour ay kàddoom ci enquête yéenekaay muy xamle ne gannaaw culture jóge na ci moom léegi nag dana mën a gàdduwaat microm taxawaat ci kanamu Super Étoile di dóori concert am Bercy Youssou Ndour ne lu mën a nekkaat la waaye cosaan moom ku ko fa kocc doo ko fa gis ndax du fa jaar